Je suis le Digital di président de la république son excellence monsieur euh, Macky Sall Je mi nga leader du parti Le mouvement bi un mouvement pour les élèves étudiants républicains et fii ci département bi mu le mouvement qui est mouvement bu base la ko xam département bi xam département bu bees la mo nek département bi nga xam président mom la fi teg ñom structure bu bees jigen jiite ko mu nek fierté ak contentement ci ñun. japp na ni quand on parle du mouvement élèves étudiants cible moy ce sont les élèves et les étudiants donc mom motax tay ñu def descente ñëw ba ci fi localité Jaxaay nous avons ñëw ci benn école primaire bu à la Assainies Inter 14 pour def def def comme nous avons koy un esprit sain dans un corps sain C'est-à-dire que endroit bi ñu war a dafa clean donc loolu moo ñu motiver moom moo ñu poussé ak engagement bi ñu am département pour ñu def activité bu mel di wax yi engagé parce que département bi suñu département la ñu ñëw rejoindre équipe bi nga xamné mom mo fi nekk tay maire bi mom mo fi nekk c'est le maire légitime moy maire bi nga xamné mom mo légitime mom mo légal di wax ñeneen camp yi ñeneen ñi ñi dégg ci euh, côté yi ñu ñëw rejoindre parce que bo né da nga bëgg liggéey bép équipe buñ fi tégg rek da nga wara a ñëw liggéey ànd ak mom c'est le maire c'est Yassine mo nekk coordinatrice bi ñuy invité jeune yëpp ñu ñëw rejoindre équipe bi ñu liggéey liggéey pour parti bi liggéey pour président liggéey pour suñu koñ tay ji ku gis activité activité avant tout activité la bo xamanteni ça concerne tout le monde parce que jaxaay génn nañ tey ñëpp parce que ku nekk da nga ci sentir sa bopp donc comme on le dit tout le monde ñëpp l' état nous le changement c'est est nous ñun ñoo war a engagé wu liggéeyal suñu koñ liggéeyal suñu gox di invité tamit autorités ñu gëstu école parce que école bi ñu ñëw nii jàpp nañ ne soxla nañu ñu teg leen loxo gis nañ fi ay besoins yu fi nekk di invité autorités ñu ñëw fii seet si leen jàppale leen dina nag ñun suñu taxawaay ci euh, département bi moy liggéeyal président ba mu gagner élection locale ci les 6 communes di ci profito tam di wax ni maire bi sa regroupe tous les communes communes y donc je euh, vous remercier aussi la confiance bi n'est c'est pas facile du tout tout le monde veut être coordinateur mais ce n'est pas donné Il y a le mot dit on est tous des coordinateurs donc nous leen ñu ànd ànd boole suñuy force parce que bolo mom moy doole bu ko défé président amdam ndam amdam am euh, localité yëpp amdam nous ñu jëm vers l'émergence comme niñ ko waxé engagé wu bolé suñuy force inshallah tout d'abord dama leen di remercier dama remercier parce que ni ngeen def yombul di leen ñaanal aussi que mouvement mouvement de jeunesse là, donc ku leen di ñaanal da ngeen di ñaanal ngeen jëm kaw. li ngeen ci bëgg yal leen ko yàlla defal voilà euh, li ngeen def nii bu doon ne toutes les communautés noonu lañ def kon tey jii duñ am problème ubbi tey jàng tey ndax chaque fois école dañu am confronté ak seen problème mu nettoyage et cetera pour def ubbi tey jàng tey te état toujours day wax ubbi tey jàng tey mais am na école yoo xam ne dañuy du durant tout le mois d' du ñu jàng ndax problème mu accessibilité. ñii dañuy am ndox ñii dañu am ñax comme fii ñii seen classe yi fonctionnel donc yéen ñii ñi ngeen def nii bu doon yëpp ñu ngi koy def au niveau du Sénégal kon ubbi tey day jàng day day général. voilà maintenant ñi ngeen def nii nekk na loo xam ne nii ngan na loo xam ne rëy na si rëy goo xam ne nii si ñun xamuñ ni mu toll. di leen ci ñu continuer di leen ci ñaanal te di wax autorités yi aussi ñi leen di jox les moyens. école bi fi commencé sori na te bi commencé ci benn kër lañu ñu pour ñu commencé fofu def école bi ñi dem di dem ba tay yalla indi ñu ci site bi avec maire bi nek ci gox bi mo ñew manam li fi nek déjà yépp mo fi jotta def mais nak salle de classe yi matul des nañ ay salle de classe parce que ñi ci sous abri ba lay kon salle de salle yi doyuñ ta matuñ ba paré école bi amul ndox maanaam robinet pour xalé yi mëna a naan école bi amuko ko toilette yi manké na

ci maire communal bi ñu jëm départemental bi nga xamantene yassine Yacine jité de manière très très très légitime ñand ci si di liggéey ñu ñëw japp ci mu donne une force vive une force de proposition et de réflexion parce que li ni wané nako donc euh, tay dama am fierté am contentement euh, recevoir ce euh, mouvement élève étudiants bi. ci sama quartier vraiment ci commune bu jaxay parcelle. donc li rek firné la firné la ni que jeune département. Kër Massar dañu engagé suñu président de la république dafa déclaré ubbi tey jàng tey nous naa ñun ñu ci parce que tamit élèves yi suñuy rakk lañ suñuy jarbaat lañ suñuy doom lañ jaadu na rafet na aussi tam balaa ñoom ñu commencé di jàng ñu ñëw defar école yi ba mu comme nous ñu def

mi ngi fii nii mën na indi des maladies yoo xamante nii mën na affecté ñi fa xam ñoom ñoo fiy jàngee ñu ngi lancé appel son excellence monsieur Macky Sall di aussi lancé autorités yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ñu gëstuwaat éducation yi parce que instant bi nii l' éducation moom moo mën a permettre suñu dëkk jëm ca kanam kontaante la si ñun ndax tamit euh, nekk jeune pour man da nga war a déterminer wu nekk homme de terrain te très franchement loolu lañ bëgg te loolu la ñuy dund te yàgg nañ ci siyone bon en tant que ancien nag boo xamante ne yàgg na bokk ci maire bi c'est tant que nous mës a dox ba yàlla def département tey le a les six communes les trois arrondissements à cité euh, Malik, Malika Les trois arrondissements yooyu ñëw ëmb six communes Nous faisons fépp représentants bon en tant que le président euh, président commission sociale nous avons ñaan ci appuyer avec les avec des moyens on a besoin des moyens. que ça soit matériel ou financier parce que tay bo bëggé def bo amul ay moyens do def waxtan wax dëgg ci la té ñun ku ñu xam-xam né ay homme de terrain lañ. j'appelle à tous les jeunes républicains ñu ñëw rejoindre ñu ñu liggéey. même ñu dul républicain sax bu ñu amee activité yu mel ni ñun bu ñu woowee ñu ñëw parce que ñun lañ. donc je pense que suñu waruwaay mooy en tant que élève en tant que étudiant te mouvement bi regroupé mboolem kuy élève mboolem kuy étudiant boo xam te républicain nga ne ci département bu Kër Massar pour a dimbalante mën a euh, xeex mu a jëm kanam donc tey activités yi bëri na trop te dinañ def tuuru six communes yi mais commune bi ñu njëkkee mooy commune ci unité 14. lancé un appel mu ngi ci ñu ñëw rejoindre maire pour qu'on puisse travailler pour nous émerger donc je pense que nous war nañ ne du son excellence président Macky Sall ci ban cadre département de moo créé donc nous waa Kër Massar war nañ ko delloo njukkal ci loolu nous ñu koy en tant que jeune politique du yooku tàccu mais tamit poser ay actes yoo xam ne développer suñuy gox